rawatina ñi mënta yër làkku arab ak képp ku ko mën a yër te sag jot mayu la gi ñu indi xisa yi ngir bëgg nit ñi mën cee jariñ ñi ngi tàmbee woon ci xisa xisatu yusuf alayhi teg ci xisatu suleymaan ibni daawud teg ci xisatu ayub Euh, tey jii nu am yéene indi leen Muusa alayhi salaatu wasalaam borom tabaaraka taala wax na ci alquran ni waskuru fil kitaabi Muusa innahu kaana muxlisan wa kaana rasulan muy Muusa ibnu Imran ibnu Yashur ibnu Qaahis ibnu Laaw bun Yaquub alayhi salaam Eh, boroom xam-xam yi wax nañu ni yaqub bi muy am laaw boobu mi ngi am juróom ñett fukki at ak juróom ñeent laaw moom i nag moo denc bita bintu ma waa bintu yasjub am ci ku ñuy wax xarsuun xarson am ci ku ñuy wax xarsoon ak marda ak xaaxis xaaxis moom yi nag ginnaaw bu mu amee ñeent fukki ak juróom benn la denc faahi bintu mobin bun tanwiil ibnu Ilyas am ci ku ñuy wax Yashur bun Qaahis Yashur moom yi denc ku ñuy wax Sumayit bintu Yataadim bun Zakariya bun Bishaan bun Ibrahim am ci Imran booba am na juróom benn fukket wax nañu Yashur amoon na téeméeri at ak ñeent juróom-ñaar ci jamono boobu Imraan bun Yasxur moom yi bun Najib denc doomi Shamawil bun Zaka bun Baskiya bun Bashaan bun Ibrahim am ci Haaruna ak Muusa woote nañ ci seen turu ndey ñoom ñaar ibnu Isxaaq wax na ni Najiib la tudd am ñu ne Naajiya la tudd am ñu ne Yuxaabiil la tudd mooy li siiw Imraan amoon na téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñaar waaye bi muy am Muusa mu ngi toll ci juróom-ñaar fukki boroom xam-xam histoire yi wax na ni bi Rayaan ibnul Walid mi jamonoonte woon ak euh, Yuusuf faatoo te Rayaan ibnul Walid moom yi moo dénkoon Yuusuf magasin suuf yi mu daan ya magasin yi mu daan joxe ab dund jamono boobu te mu joon jëbbali ci ñaari loxo Yuusuf wax nañu ne bi moom faatoo ku ñuy wax Qaabuus bun Musaab moo fi toog waaye Yuusuf woo ko ci diine mu bañ doon ku dëng doon ko gudd fan ba ci biiru nguuram ci la yuusuf faatu alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bu mu faatoo moom xaabus moom yi mbokk mu ñuy wax abul abbas ibnul walid bun musab bun rayaan toog waaye moo yées xaabus gën ko kàccoore ak ngóoram yàgg lool moom itam banu israil ginnaaw bu yusuf faatoo ñuy dund ci lool yi waaye nag dund ci biir nguur gu targoo gi waaye teewul rek ñuy dund ci des iti dine ibrahim ji leen yusuf bàyyiloon dana ci lool yi lañ wéy ñoom bani israil ba firawna mi yàlla yónni woon muusa ñëw firawna mi yàlla yónnoon Musaa mi ngi tudd Ramsis II Ramsis Assaani waaye firawna moomu dikk yéesati mbooleem firawna bu ko jiitoon xam ngeen ni firawna aw tur la wow képp ku doon buuru Misra rek firawna lañ lay wooye dafa doon aw dàkkental ci ñi ñi yilif Misra na moom nag menn mësu koo yées ci firawna yi fi jaaroon kenn gënu ko rëy ay wax kenn gënu ko aw ab xol gën leen a gudd fan lool ñaaw lool politique bu mu daan doxale digganteem ak bani Israël ndax daf leen daan mbugal di leen jaamuloo def leen ay surga xeetale leen ci xeeti liggéey yi muy liggéey xeet wuy tabax wuy xeet di bay wii xeet mengoo jëf yu salte yi muy raxas ay dus ak yu ñi yelloo wut xeet liggéey yooyu yëpp nag am galag bu mu leen di laaj te mooy lempo ni ko yàlla waxe ci alquran ni yasumuunakum suu al adab yusabbixuuna abnaakum wa yastahyuuna nisaakum muy jamono ba ne ñu ngi leen di teg mbugal mu ñaaw di ray seen doom yu jigéen di rey seen doom yu góor di fi bàyyi doom yu jigéen yi firawna moom nag mi ngi dencoon jigéen ji ñuy wax asiya bint musahim radiallahu anha mu bokk ci tànnee fi jigéen ñi asiya bintu musahim moom yi moo doon sataatu rayaan ibnul walid mi jamonoonte woon ak yusuf te jëbbul woon mu xaatil nee na ahlu misra ñett ñi rek ñoo ci mas a jëbblu muy asiya ak hasxil ak maryama bintu tamusa Maryam bint Muusaa nag moo tegtale woon bàmmeelu Yuusuf alayhi salaam ci jamono bi ñu réere jamono bi bani Israil bëggee génn far réer bañ amee jaaxle dafa Muusaa dafa dajale boroom xam-xam yépp laaj leen nee na ñu ne ko Yuusuf alayhi salaam dafa daalante woon ak waa Filistin ni leen saa bu ngeen demee bay génn da ngeen ma génnee waale suufas Misra yóbbu ma ci suufas Filistin kon jort nañ réer gi ñu réer loolu moo nu ko teg Musaa bi muy wër di gëstu ku ko xam ba as jox na xam le ni xam naa ko Musaa ni ko nañ dem ko ma ko mu ne ko ooma kàttanug dem xanaa danga may tungoom Musaa tungoom ko ñu dem ba ci dexug niil bañ demee ba ci dexug niil mu wax ni fii la nekk da ngay ñaan yàlla ndox mi randu bi Moussa ñaane yàlla ba ndox mi randu jigéen ji dox ba ak si taxaw ni fii lañ dencoon Yuusuf bañ ko gasee fekk fa kees ga ñu yanu ko yóbbaale kooku mooy Maryamu bintu Taamusa Firawna wax nañu dafa gudd fan lool ci ñoom am nañu ni sax amoon na ñeenti téeméeri at lépp rek ñuy dund dund bu metti boobu yi ñoom ba Bani Israël bi yàlla demee ba bëgg a wuññi njàqare ci bani israil la yebal Muusa alayhi salaam te su di yu nettali ci juddug Muusa wax na ne Firawna dafa gént lu mel ni safara wu jóge baytul maqdis ñëw daj néegi misra kapp lakk ko lakkaale mboolem xibta yi muy waa misra bàyyi fi bani israil firaana woo mboolem njabarkat yi ak tënikat yi ak firikat yi gént yi ak e, boroom xam-xame biddiw yi laaj leen géntam googi ñu ni ko dafa am xale bu war a judd ci bani Israil bopp bu juddoo mooy nangu sa nguur gi ci yow moo lay not te dana la génnee yaag sa waa kër ci sa suuf si te sa diine ji dana ko soppi te jamono ji muy ñëw jege na soreetut jamono ji mu war a juddu yegsi na biñ ko waxee loolu Firawna daal digle ni kon bépp xale bu góor bu juddooti ci bani Israil waa bani Israil nañu ko rey daldi boole jigéen ñi daan doon ñépp daldi leen di digal ñuy wër di bind mboolem ñu tollu ay diggante ak ñu tollu ci seen weer di wax ni ko ci toll ci ab weeram rek na ngeen dem seet ko bu dee góor ngeen wane ni jur yéen wane ni eh, diw jur na góor léegi jigéen ñi di liggéey liggéey boobu yi ku judd bu dee góor ñu wax reykat yi ne leen kii góor la jur ñu daal di koy rey ca saase bu dee jigéen ñu bàyyi ko danañu wéy ci lool yi ci wéy di ci wéy ba mu am diir bu yàgg nee na waa misra dajaloo ni firawna liggéey yi nu bani israil daan liggéeyal mi ngi bëgg a agsi ci suñ kaw ndax xale bu góor bu dëgër bu yokk ci bani israil amatul te seeni màgget ñi ngi faatu nee na Firawna ni leen kon nañuy def bu ñu reyee am at jëndal am at ndax ñu leen di liggéeyal man cee juddoo wax nañu ni Haaruna mi ngi juddu ci at mi ñuy jënnal li ci ñàkk rey Muusaa nag judd ci atum rey mi bi Muusa juddoo ci at atum rey mi nag yaayam tàmbali ko nàmpal xelam dalu ci ngir xam na ne buñ ko gisee dinañ ko rey yàlla wax yu ko ni ko nàmpal ko boo ko ragalee nàmpal na ko tàbbal ci géej gi daañu ko delloosi ci yow bul ci ragal bul tiit des na ko delloosi ci yow boole ko ci yonante yi ne yàlla wax yoo loolu yaayam tàbbal ci am xelam mu daldi di wut lu lu mel ne ak kees liggéey lu benn kees daf ko dénk daldi wut lum nooyale biir ba dal tëral Muusa ki ñuy wax mu xaatil nee na kees googi xasqiyil mii mu'minu aali firawna moo ko liggéeyoon nee ko liggéeyee ndey Muusa daal dugal ko ci biir daal koy sànni ci dexug niil ndox mi wéy ak Muusa duus yi di ko sànnente ba ba dugal ko ci diggante ay garab yu nekkoon ci kër Firawna xam nga ni na pale bi mu dëkkoon mi ngi tiimoon dexuk niil garab yi moo ko tàbbal nag ab dajewukaay la maanaam ab ay garab la yoo xam ni jébéeri Firawna na lañ daan daje di fa sangoo ak di fa fóote turu Muusa loolu moo ko indi wax nañ ni Muusa mu li muy tekki mooy ndox sha di tekki ay garab ci làkku waa misra ci jamono boobu fekk giñ ko fekk ci diggante ndox mi ak garab yi nag moo tax ñu di ko wooye Muusa jébéri Firawna yooyu bi ñu ko gisee dañoo jàpp ne alal nekk ci kees gi ñu jël ko waaye noonu lañ ko yanoon rek yóbbu ci Asiya mi doonoon soxna si Firawna ko yóbbu ci Asiya ñu ubbi kees gi fekk muy xale bu góor bu rafet Asiya am ci moom ak cofeel lool ne alxuraan waxe ne wa alxaytu alayka mahabbatan minni mu yàlla daf ko defal ak cofeel gu jóge ci moom defal ko ak cofeel ci xoli nit ñi ba ku jàkkaarloog moom rek daf koy daldi sopp wax nañ ne bi ñu ko génnee ci kees gi doomu firaana bu jigéen bi mu ñëwee laal ko lor yi doon génne ci gémmiñu Muusaa bi mu ko laalee siti si nekkoon ci moom dafa daldi wér mu daldi fab Muusaa tàpp ko ci ab danam foon ko way daw yi bokkoon ci niti Firawna daldi wax na kii di jot nañ ni mooy ki ñu wax ni dafa war a judd ci bani Israil nga doon ko moytu ndax li tax ñu sànni ko ci géej gi booy woo de rey ko mbaa ngi sàkk ci pexe nee na bi ko Firawna bëggee rey Asiya ñaan ko ko bi mu ko ko ñaanee ni koy sëy nañ lu yàgg amuñ doom kon nag bu leen ko rey laa taqtuluhu ase an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan bu leen ko rey ndax mën na noo jariñ mbaa jàppee ko doom bi mu ko ñaanee Firawna Firawna may ko ko mooy ki ko tuddee Muusa ndax Muusa loole lay tekki muy ndox ak i garab bi ko ko Firawna mayee la ko tudde turwaw yi moom Asiya yaay Muusa nag daldi wax magi Muusa ju jigéen ni ko xeeñ ko magi Muusa ju jiw mi ngi tuddoon Maryama xusiihi mooy na nga topp jeex itam di ko xeeñ ndànk par ndànk tey déglu ba xam loo ciy dégg ndax mi ngi dund walla dàbbay géej gi alag nañu ko lekk nañu ko waaye mu mel ni dafa fàtte dawlu bi yàlla ba mu ko daaloon muy inna raadduuhu ilayki nee na xale bu jigéen bi topp ko di ko xañ ndànk par ndànk te yëguñ ni kii moom lay topp ndax ma nga nekk fu sori mooy fa basurat bihi an junubin wa hum laa yash'uruun mooy mu di ko gis fu sori te yëguñ ni mbokkam la xamuñ ko Asiya bi mu jotee ci xale boobu bi daal di bëgg ku ko nàmpal mu yeble nañ ko waral jëpp jigéen ju am soow ngir mu nàmpalal ko Muusa waaye jigéen ju ñëw bëgg koo nàmpal rek bu ko jëlee Muusa du nangu nàmp ci weenu jigéen joji ba Asiya dem ba am ci tiitaange xol loolu mooy li alxuraan di wax ni wa xaram na alayhi al maradia xablu mooy dañoo araamaloon ci moom nàmp bu demee ba tiit ci ngir nanguwul kenn magam ju jigéen jooju ni leen ndax danaa leen tegtal waa kër goo xam ne de danañ leen ko yaral te danañ ko laabire nena bi mu waxee kàddu googu way bew yi daal di koy jàpp na ko bënd xataal na koo sanal ne ko loola xamal ni ñooña danañ ko laabire yow mën naa am ngóor si da nga ko xam da xam kan moo ko jur mun leen dama leen a xam xam ne danañ ko laabire am ci moom ak cofeel ngir xeymam teef gu ñuy am ci amub cër fii ci kër gi bëgg gu ñuy bëgg amub cër fii ci seen kër gi muy këru ngóor gi mooy tax wóor na mën rek seen kem kàttan danañ ko ci def bi mu waxee loolu ñu daal di koy bàyyi mu dem ci yaayam wax ko xibaar bi bi yaayam ñëwee bi mu ko joxee aw weenam rek Muusa sax ko dal ci namboo nangoo nàmp nee na ñu daldi daw dem ci Asiya ni ko nangu naa nàmp wutal nañ la ku mën a nàmpal sa doom nee na bi mu ñëwee moom Asiya ba xool ba gis ne mi ngi nàmp mu daldi wax yaayam ni ko dangay ngay sax fii fi man di ko nàmpal di nàmpal sama doom jii ndax mësum nii ma ko bëggee mësuma ne bëggee dara mukk ci àdduna nee na ndey ji ne ko ah loolu de dana des ci man toog fii di ko nàmpal bàyyi sama sëy ak sama njaboot ca kër ga ñuy sànku waaye bu ma ko mënoon jox ma yóbbu ko ci kër ga day kon ci laa koy gën a mën a yare gën koo mën a nàmpal ba ni nga ko bëggee danga ko ne amee nee na Asiya may ko loo lii bi mu ko mayee mu delloo ko këram nag wax nañu ni loolu yi mooy dël bi ko dë bi ko yàlla daloon ni fa mooy inaara duuxu ilayki moom la yàlla wax ne faradadnaahu ila ummihi kay taqarra aynuha wala taasan wali taalama ana waxdullahi xaq nee na yaay bi mu ko yóbboo ba këram tuuti rek mu leeral ni sama dooma biral li nekk ci moom waaye yàlla musal ko ci wax gi loolu mooy in kaadat la tubdi bihi lawla an rabatna ala xalbiha li takuna min al mooy tuuti rek mu feeñal li ne ci moom bu ñu dëgëru tëkkutoon ab xolam nee yàlla dundal ko dund bu tey moom Muusaa moomu wattu ko bi mu demee ba dëgër Asiya daldi wax ndey Muusaa ni ko dama bëgg nga woon ma sama doom dal koy dël bis bu mu war a ñëw won ko ko ci dina Asiya wax ñi doonoon ay ñi sasoon ci moom ñi mu gënoon a fonk ci jigéen ñi bokk ci waa nguur gi bu doon léegi da mën nañ ne soxna yi ministère yeeg borom yépp mu daldi leen di invité ni leen yéen ñëpp ñu ngeen ñëw na kenn ku ne ci yéen ñëw indiwaale may gu muy may sama doom ji ak teraanga ju mu koy tarale ci bés sàngam nee na bés bi demee ba yaayi Moussa di indi Moussa nee na ñuy fab may yi te mooy yi di ko ko jox di ko andil yaayam di ko ko jox ba ñi yanu àttanatuñ li ñu yanu nee na booba ba nim agsee ci soxna si Firawna su muy Asiya moom itam mu teral ko dal ciy bég dal di yéemu lool ci taar bi doom ji taaru ak màgg gi màgg màgg gu rafet gi màgg dal di ni ko jàllal ci Firawna ngir mu teral ko nee na bi mu demee ci Firawna nee na Muusa dafa jàpp sikki mu Firawna ba xëcc ko ba dagg ci ay kawar te Firawna ku guddoon ab sikkim la jamono booba nee na ba mu ci daggee ay kawar Firawna gaaflu lool li mu def daldi ittewoo rey ko mais ba mu ko bëggee rey Asiya ni ko kii xamul dara ci li muy def gone la rek daldi koy jox ab tegtal ci ni ko li lay xamal ni xamul ci li muy def dara damay indi xalu a teg ak uh, ak benn benn yaaquut muy benn or bu fekkee xàmmee ne leen nga xam ne li muy def moo ko tey bu fekkee xàmmee wala nag nga xam di yëfi gone rek nee bi mu tegee xalu sawara boobu ak yaaxóot bi eh, biñ bàyyee Moussa mu raam ba agsi jël xalu safara wi daal koy sex mu daal ni ko mi ngi nii gone la gu xamul dara bu fekkoon ne xelu na xam nga ni moos du jël xalu sawara wi di ko sex wax nañu ne Moussa bi mu ñëwee dafa tàllal loxoom jëmee ci jëwhar bi ci or bi bëggoon koo jël waaye Jibril moo soppi loxoom mu yóbbu ko ci xalwa bi mu ko jëlee teg ko ci gémmiñam mu lakk ko loolu moo andi dotamug làmmiñ googu ko daloon ba muy ñaan yàlla wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bi mu defee loolu yi aasiya ni ko gis nga ko gone la ko xamul dara ndax bu xamoon dara du def lii nee na Muusaa dañut doon kuñ taral foofu fonk ko fi lool yàlla bëggloo ko Firawna bëggloo ko nit ñi képp koo gis rek bëgg ko loolu mooy wa alxaytu aleyka mahabbatan minni dañ nettali sax ne Iblis laaj nañ ko ne ko ndax bëgg nga kenn ci nit ñi mu ne déedéet ku dul Muusaa ibnu Imraan alayhi salaam bëgguma ko nee na ñu ne ko lu tax loolu nan la mën a nekke mu ne ndax yàlla dana ko waal xaytu aleyka mahabbatan minni ba bëggeel gi ma ko bëgg teyuma ko mu ni cofeel goog yi doonul lu ma tey lu yàlla def ci moom la kon loolu yi moo aju ci juddu gi ak nàmpo gi ba nim delsi ci kete Firawna di fi yaroo melow Muusa Kaabul Ahbaar wax na ni Haaruna dafa doonoon ku am fasaaxa ku leer ay wax kook buy wax wax ju teey lay wax nee na moo sutoon Muusa tuuti bopp bi amoon màndarga bu ñuul ketul làmmiñ wi it am màndarga bu ñuul nee na Muusa moom doonoon ku uh, ku ku xees ku xeereer aw yaram doonoon ku rankaloo kawar doonoon am njool moom itam wax na ni aw làmmiñam ak dotam daf cee nekkoon akuk diis akuk akuk bar bu ma tàndi wax dafay diis ba noppi bar catul làmmiñ wi it màndarga mu ñuul moo ci nekkoon kon lool yi mooy melow Muusaa ibnu Imraan mu ni mufassiroon yi wax nañ ne Muusaa ibnu Imraan bi mu demee ba dëgër daan war ànd ak Firawna di sol col gu mel ni gi Firawna di sol colug doomi buur ñu xame ko ci Muusaa ibnu Firawna nee na ci lool yi la aaru ba liñ daan teg bani isra maanaam moom Muusa ci sababu Muusa la bani Israil aaroo ba lu bare bari ci tooñaange ju ñu leen daan teg ak ñu ñu leen tàggate woon di leen sonal wàññiku woon na ci jamono boobu ndax nëbbuwut ci moom ni dafa nekk ci kër Firawna yaroo fi waaye yaayam ci bani Israil la bokk ginnaaw nag ñee ñuy bënn di leen sonal ñooy ay nijaayam mu bàyyi leen xel eh, di leen aar kaaraange ju bare bari loolu soppi na lu bari ci coono yu ñu daan teg bani Israil waaye loolu lépp nag nit ñi jàppewuñ ko woon dara lu dul jàpp ni lam nàmpe ci ñoom rek moo tax mu fonk leen teg leen foofu yi ñu wax ni benn bés Firawna dafa war boobu Muusaa néewu fi bi mu ñëwee ñu ne ko Firawna war na mu dal war topp ci ginnaawam moom Muusa bi mu demee ba digg ba cëg am kenn dal dabe ko ci suuf suñuy wax mand suuf soo si ma nga fa tàbbi ci digg ba cëg fekk ñu tëj marché yi gisul kenn ci yoon yi ko mën a laaj dara moom la alquran di wax ni wa daxala almadinata ala xiini gaflatin min ahliha mooy ba mu fay tàbbi ci jamonoy e, càggante gu waa dëkk ba la fa tàbbi muy kenn yëgu ko dal nee ba muy dox ci biir dëkk bi gis ñaari gaay yuy xeex kenn ki bokk ci bani israil ka des bokk ci àllu firawna niti firawna ni ko alxuraan waxee ni fa wajada fiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiatihi wa hada min aduwi muy mu fekk ñaari gaay yuy xeex kii bokk ci ab kuréelam kii bokk ci ay noonam nee na saamiri bi bokk ci ab kuréelam sàkku ci moom ak tàttali mu xettali ko ci euh, noon boobu bi mu doon xëccool te noon bi mu ngi bokk ci waa ci xibt xibt yi muy waa Égypte dañoo xam ne moo daan lakkal mburu Firawna mi ngi tuddoon Qaanuun ñun dafa jënd matt nag euh, ngir yóbboo ko fa muy defare mburu ma daal woo saamiri yu boobu ngir mu yanul ko ko mu bañ bi mu bañee ñu nekk ci xëccoo boobu bi fi Moussa jaaree mu sàkku ci moom ak xettali Moussa wax xibta yóbbi ni ko bàyyi ko xibta yóbbi te mooy euh, lakkatu mburu bi ni Moussa ci sa liggéeyu baay laa ko laa koy liggéeyloo nii mu bañ Moussa ni ko bàyyi ko ba mu ko ne bàyyi ko mu bañ Moussa daal di mer daal di ñëw jàpp ko daldi di sowee saamir yu boobu ci loxol waajo ji ba mu ko sowee nag xibti yu boobu xëccoo ak Moussa bi ñu amee ab xëccoo Moussa dóor ko benn kurfañ dal di koy rey waaye ba mu koy dóor xamutoon ni dana dee ci dóor bii loolu mooy fa wakasahu Muusaa fa xadaya aley nee na mu dóor ko benn kurfañ rek mu daldi yam yem foofa nee na Moussa daal ne ah, lii de jëfi seytaane la innahu aduwun mudillun mubin daal ni rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa xafara lahu innahu huwal ghafurur rahim Moussa daal di ñaan yàlla ni ko yàlla day yàlla ni ko yàlla day tooñ naa sama borom yàlla na nga ma jéggal tooñ naa sama bopp yàlla na nga ma jéggal yàlla jéggal ko ndax mooy jéggalekat bi di yërëmekat bi wax bu nee na yàlla dafa wax yu Moussa ne ko giñ naa ci sama tedd nga ak sama màgg nga ni bakkan bii nga rey bu ma masoon a seral sama xol kem farfat la ayin mbaamu masa seere benn yoon ni may borom bi binde di wërsëgal rek dinaa la musal caf ak mbugal waaye li tax ma jéggal la mooy mësta seral sama xol kem tarafat la ay ni mësta seere benn yoon ni maay aji bind ji di aji wërsëgal ji wax nañu Moussa bi mu rayee xibti yóbbu yàlla rek leen gis ak israel yi boobu mu ko doon doon xettali bi ko rayee nag xëy nekk ci biir dëkk bi am tiitaangee xol di wër mooy faas baxa fil madinati xaaifan yataraqab mooy di fuglu xibaar yi war a bàyyikoo ci mbooloo mi ak lan la ñuy wax waaye kenn xamul ku ko rey wax nañu ni waa misra dem ci firaam na ni ko bani israil rey nañu benn waay bu bokk ci ñun kon nag dañoo bëgg nga jëlal na suñu àq ndax loolu kat mënuñ koo jéggale Firawna ni leen andil leen ma ki ko rey ak ku ko seere ndax mënuma àtte ci lu dul ay seere ni leen dem leen ngeen sàkku loolu yi ngeen wëri ko daal ba am lu leer nee na bi ñuy wër amuñ benn seere ca ëllëg sa Muusa rombati Israel yu boobee muy nit kookee doon xeex démb muy xeexate keneen ko bokk ci niti Firawna nee na Moussa kooti ci moom ak xeetliku fekk jamono boobu Moussa mi ngi toll ci ak rëccute ci li mu defoon démb nee na mu dal ci mer bi mu tàllalee loxoom jëmee ko ci eh, misri yu bi te mooy nituk Firawna ki ngir bëgg a tàggale seen diggante waxaale it waa ji ni ko innaka la xawiyun la xawiyun mubin ni ko boobu ni ko yow kat ku bew nga daldi tàllal loxoom buur jëm ci firaaw niyu bi ngir bëgg koo jàpp wàjji tiit jàpp ni moom la Muusaa bëgg a jàpp mu daldi daw daldi ni ko ndax danga maa bëgg a rey ni nga reyewoon bakkan démb mooy aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsan bilams daldi ni ko in turiidu illaa an takuuna jabbaaran fil ardi wa maa turiidu an takuuna min al ni ko bëggoo lu dul doon ab jabaar ci kaw suuf bëggoo yewenal dara moom mii nga xam ne moom la dimbali woon démb ba tax mu rayoon nit moo ñëwati wax ko kàddu yooyu xanaa mooy li ñuy wax ni noon bu yeewu moo gën xarit bu dof ndax noon bu yeewu mën naa nekk ci lam nekk rek bàyyi la waaye xarit bu dof moom mën na laa yéene jariñ sax far lor la moom la woykat bi naan inna labiba tazaayada buxduhu ahra alayka min asadiqi al ahmaqi muy aji xelluju ak mbañeelam dolliku ci yow de moo gën ci yow xarit bu dof saalih ibn abdul quddus wax na ko wali an yuaadi aaqilan xayrun lahu min an yakuna lahu sadiqun ahmaqu nee na ak ku moo gën di xaritoo akub daf daa cey teg ne farba bi nafsika an tusaadiqa ahmaqa inna sadiqa ala sadiqi musaddaqu mooy na nga soril sa bopp muus di xaritoo akub daf ndax ab daf kat ndax ab xarit kat lu mu wax ci xaritam rek loolu la ñuy gëm te boo xaritoo ko dof mën na laa indil ay jafe-jafe yu bare bare wax nañ ne bi ñu xabaaree Firawna loolu ñu dégg ni ko Muusaa mooy ki reyoon nit ki démb la digal reykat yi ni leen nañu ko rey ni leen sàkku leen ko foo ngeen ko gis rek nañu ko rey ndax ngu as ngóor la sos daal du gindi ko kenn mënu ko teg ci yoon nee na benn waay bu bokk ci kuréelu Muusa jóge ca kaw dëkk ba ñu di ko wax xasxiil xasxiil moom mu ngi daan dund ci desiiti dina Ibrahim bokk na ci ñi jëkk dëggal Muusa alayhi salaam gëm ko jële nañ ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ne ñi jiitu ci xeet yi de ñett lañu ñoo xam ne mosuñu wedd yàlla kem tarfata ayn muy xasqiyil muminu ali firawna ak xabibu najjaar ak saaxibu yaasin ak ali ibn abi taalib waaw mooy ali ibn abi taalib radiallahu anhu moom lañ jublu ca saaxibu yaasin mooy ki gën ci ñoom nag mu ne xasqil moom it di muminu aali firawna dal di ñëw jaar ci yoon wu gën a gàtt yoon waññee jaar ak si ci Muusaa xibaar ko li xew ni ko mbooloo mi de ngir diisoo ngir rey la te it Firawna joxe na ndigal ci buñ la gisee nañ la rey kon nag génnal dëkk bi lii mooy li ma lay labiré loolu mooy li alxuraan di wax ni wajaa rajulun min aqsal madinati yas'i qaala yaa Muusaa inna al malaa ya'tamiruuna bika faxrujinni laka min annaasixiin mu ñëw ni ko mbooloo maa ngi disoo ngir rey la kon nag génnal nee na Muusaa gëlëm xamul nu muy def xamul fu muy jaar am malaayika ñëw war ci kaw fas daal ni ko topp ma nee na bi ko Muusaa toppee mu gindi ko won ko yoonu Madyan jële nañ ci Saïd ibnu Jubayr mu jële ci Ibnu Abbas mu wax ni Muusaa bi muy génn di dem Madyan muy génn misra jëmmat yann dox euh, dox juróom-ñetti guddi la jamono booba ñu di ko misaal ci ni mi ngi mel ni ku jóge koo fa jëm basra mu ne amul benn ñam bu mu daan lekk bu dul xobi garab ca xobi garab la daan dund mu ni xobi garab yooyu mu daan dundee àgg na ci sax boo xoolee biir bi wert wert xobi garab yi jaxit jooju nga ciy seen wax nañu ne bi demee ba dugg suufus misra am juróom-ñetti guddi ci bés bi wàcc ba mu demee ba dugg ca suuf sa wàcc ca ronu garab ron garab googu ab teen nekk ca mu fekk fa mbooloo muy root di wëgg seenub jur Musaa jàdd ngir màndal aw maram ci ci ndox moomu ñëwee ba jub leen gis ñaari jigéen ñooñ dañuy dàq seenub jur di leen fekk ne la ca pegg ba mu ni leen luy seen mbir ñu ne ko ñun day dañoo mënta dugg ci biir raj rajloo bi ndax ay jigéen lañu sunu baay nag mag la mooy wala maa warada ma a madyana wajada alayhi ummatan min annaasi yasquun wa wajada min dunihim imra'atayn tasudaan qaala maa xatbukuma qaalataa laa nasqi xatta yusdira ri'aa'u wa abuna sheykhun kabirun ñi ko waxee loolu Muusaa am ci ñoom yërmande daal di ñëw wëggal leen am na ñu ne dafa am beneen teen bu fa nekkoon boobu bopp doj wañ ca daan teg mbooloo ñoo ko yëkkati Moussa ñëw ci kàttanu boppam yëkkati ko daal di leen di wëggal bañ màndal seen jur am ñu ne déedéet teen ba mbooloo ma fa nekkoon di raj loo kàttan kenn ku ne ci sa kattanu bopp nga sukkandiku woon bi mu ñëwee ko am kàttan la kooku mënuñ ko tere jàll ba àgg ca teen ba ba mën a wëgg ni mu bëgg a wëgge ku kulli xaalin daal alxuraan moom lim nettali mooy fa saqaa lahuma summa tawallee ila dhil mooy moo leen wëggal ñu màndal seenu jur mu daldi delluwaat ci keru garab ga ngir di fa noppalu bi demee ci keru garab gi daldi ñaan ni yàlla de aajewoo naa loo ma indil ci aw yiw wax nañu ne bi muy wax loolu xiif la def ba lu mu dimbandikoo rek ci xiif bi la jublu woon ñaan nee na xale yu jigéen yooyu bi ñu delloo ci seen baay mun leen ah yéen gaaw ngeen ñëw lool di ñu wax ko xibaar bi ko dañ fa fekk ku nu dimbale moo tax ñu gaaw a ñëw nii nee na mun leen dem leen woo ko ma fay ko mooy fajaa at hoo ihdeehuma tamshi ala istihyain kenn ci ñoom ñaar ñëw di dox ci kersa daldi ni ko sama baay moo lay woo ngir fay la li nga nu màndalal sunu jur nee na Moussa daal di dem ba mu demee nettali ko xissa yi mu ni ko laata taxaf najawta min alxawmi zalimin mu ni ko bul ragal mucc nga ci tooñkat yooyu wax nañ ni seen baay moo doonoon yonent yàlla Shuaybu alayhi salaam loolu yi ñu bari ci mufassiroon yi loolu lañ wax nee na biñ demee bi ñuy dem te xale bu jigéen bi jiitu ko ay yéreem ngelaw li di ko naawal Muusaa dani ko dangay bàyyi ma jiitu fu ma nar a wàcce yoon wi nga sànni aw xeer ci sama kanam ndax ñun ci diine Ibrahima lañ nekk duñ xool awra moo tax biñ demee ba àgg ba bañ wax ak seen baay ba noppi kenn ci ñoom ñaar daan ni seen baay moo bàyyi te ngaa luye kii mu liggéeyal la ndax ki gën de ci koy luye mooy ku am kàttan ba noppi di ku baax te kii de ku am kàttan la te ku baax la mu mel ni la leen xamal kàttan ga mooy dimbule gam leen dimbule ba ñu wëgg te foofa kàttan rek a fa daan dox ndax wax ñu ne ñu ni doj ba mu ca teen ba ñeent fukki góor ñoo daan dimbulente ngir mën koo yëkkati ba mu ñëwee li muy xiif xiif yëkkati na ko moom Moussa fa mu xamee amaanatu gi it mooy bi ñuy ànd di ñëw ngelaw li naawal ay yére mu ni ko dangay des gannaaw fu ma nar a wàcce yoon wi nga sànni aw xeer ci sama kanam ci la xamee ni kii xaw yi ju la muy ku am kàttan la ci la xamee ni it amiin la muy ku am kóolute la nee jigéen ji bi mu waxee loolu seen baay deful genn nattable lu weesu lal di ànd ak ñoom ci seen xememteef boobu ni ko dama laa bëgg a dencal kenn ci sama ñaari doom yi jigéen yi ci kaw nga liggéeyal ma juróom-ñetti at boo ko doolee ba mu mat fukk kooku sa coobare lay doon nee musaa Moussa ni ko waaw loolu danaa ko man ñaari digg yooyu bu ma ci def rek baax na waaye ak noonu moom fasuma yéene mu am suñ diggante mooy ay ayyama dajalayni xadaytu falaa hudwaana alay léegi ñu dëppoo ci mu war koo sàmmal kon ci kaw mu dencal ko kenn ci ñaari doom yu jigéen yooyu wax nañ ni laaj nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko ñaari digg yi ana bu ci Muusa def mu tontu ni ba ca gën a mat la def léegi bim defee liñ seqoon jigéen ñaari xale yu jigéen yooyu ka ci gën ndawe la Moussa denc wax nañ ni moom lañ daan wax Safora kon lu aju ci yatu Moussa wax nañu ne Shuaybu bi mu waxee ak Muusaa ba noppi dafa digal benn doomam bu jigéen bi ni ko indil ko aw yat ngir mu di ci dimbandiku ci càmm gi muy sàmm nee mu daal di dugg ci pekk bi génneel ko aw yat waaye yat wi mu génnee yatu ndénkaan la chony bu ni ko delloo ko yatu ndénkaan la wow am malaayika moo ko ko dénkoon bu bu defoon jëmmi jëmmi nit malaaka moom ba muy ñëw def ku dénkaal jëmmi nit la waaye nag am malaayika la fekk ndénkaan bi ndénkaanub yàlla la bu mu dénkaane ngir Muusaa mii war a ñëw jëlsi ko bi jigéen ji andi yar woowu jigéen soxna bi ni ko delloo ko te andi weneen muy dellu di del si saa bu ñëwee rek yat wi muy indi mooy jëmmi yat wa euh, bi mu ko baagante ay yoon mujjum Shuayb bu jël ko jox ko Muusa dama ko joxe yat woowu nag moom la yor di ci dimbandiku ci ak juram te sàmm ba lim yooyu ñu seqoon muy juróom muy fukki at yooyu mat mu may ko doomam ci jigéen jooji wax nañu ni am nañu ak njaboot gu bari mook Muusa ah, moom doomi Suhayb bu jooju jigéen jooji wax nañu ni Muusa bi mu génnee Madiana demaat Misra soxna bu daan def at mu jot mu ñëw seet ko bu ko mësaan seet si dañuy wax ne Moussa day ñëw di ko demal mburu mi di ko toppatoo di ko wax lekkal fonk ko lool kon loolu mooy li aju ci càmm gi Muusaa doon sàmmal Shuaybu ak nam ko dencale doomam ju jigéen ba mu jóge fa wax nañu ni Muusaa bi mu sàmmee càmm gi ba mu dencal ko doom ju jigéen jooji ba Muusaa delloo ko ak juróom dafa yëkkate ak jur may ko ko moom Shuaybu ni ko nag mën ngaa yóbbaale jur gi daldi ni ko nag boo demee booy dem nag ba fekk ñaari yoon yu xàjjali ko jëlal yoon wi ci wetu càmmooñ te bul jël yoon wi ci wetu ndijoor ak donte fa la mbopp ma ëpp sax ni ko wet googu dafa am jaan ju mag ju fi nekk joj damay ragal mu lor la mbaa mu lor jur gi Moussa bi demee ba jës fi ñaari yoon yi xaajali ko mu bëgga a soppi jur gi ñu jëm ci wetu càmmooñ waaye jur gi toppuñ ko mu bàyyi leen ñu jaar wetu ndijoor gi léegi ginnaaw bi Moussa di nelaw jur gi di for jaan ji bi mu ñëwee yat wi ci boppam moo jóg xeex ak jaan ji ba rey ko bi Muusaa yeewoo gis yat wi taq deret mu gis jaan ji dee ci la xamee ni yatam wii kàttanug yàllaa ngi ci biir mu xam ni am na mbir mu ci nekk mooy aajo yeneen yi mu doon wax ni waliya fiha bu uxra kon loolu bokk na ci aajo yi Muusa daan jëfandikoo ci yat wi li alxuraan nettali falamma xadaa Muusa lajala wa saara bi ahlihi dañu ne Muusa bi demee ba jeexal dig boobu yi te mooy fukkeelu fukki at yi daal di jël waa këram nag di dem bi mu demee jëm yoonu misra ànd ak soxnaam ak euh, lenn ci cirgo gi di dox ci àllub saam bi xamul fu muy jaar nee na muy dox di dox ba dox bi yóbbu ko ci wàlluk doj wi ci wetuk ndijoor ci sow ci so sow ci wetuk ndijoor ci ngoon gu sedd gu lëndëm waaye bi mu demee weeru foofu yi asamaan si tàmbali di dënnu di melxati di taw ba noppi soxnaam aw mat jàpp ko foofu yi ne bi mu tàmbalee matu Muusaa jël doju mbéy wi kocceel ko takkut ne mu gëlëm dal jóg taxaw dal toogaat jaaxle lool nee bi mu taxawee di settantal gëlëm lool yokkat lool di déglu kàddu ndax dana dégg dara mbaa ku ko mën a gindi mbaa dara bi mu jógee nekk ci jaaxle googu la séen lu mel ni ak leer ci wetu doj wa mooy aanasa min jaanibi tuuri naaran waaye noor la mu jorte ko naar muy eh, bi mu séenee leer goog yi mu teg ko safara safara wu mag amul sa amul amul amul saxar di tàkk di jóge ci biir garab gu vert dana bi mu ñëwee ba jege ko daldi ci amuk jaaxle daldi di arrière tuuti waaye bi mu arrière mu fàttaliku ittewoo gi mu ittewoo woon safara tax mu daal di dellusiwaat rek ñeme ndax itte ji moo ko poussé ci lu mën a doon rek daal naa am safara te dellu nee bi mu ñëwee ba jege ko ñëwoo ko ci peggu xur wi ci wetu ndijoor ci pàkk bu ñu barkeel boobu ci garab gi mooy nuudiya min shaati il lay laymani fi l buqaati mubaarakati min ashajara an yaa muusa nee na mu xool gisul kenn nee na woote bi dikkaat ni ko inni ya ana allahu rabbul alamin ni ko man mi maa yàlla mi borom bi ndefi nee na Muusaa bi mu déggee loolu yi nag ak ruuxam dal di wetti li ko waxe boromam jooji nee na boromam ni ko jegeel nee na bi mu nekk ci béréb bu tëyu xolam di fër-fëri aw làmmiñam dal di ba mënatu ta mu dal di nit mujj di dund mel ni ku dee moom Musaa waaye nag ruug dund gi daal mi ngi deng-deng ci biiram waaye amatul ab yëngutu amatul genn yëpp dana yàlla dëgëral ab xolam bi am xelam delsee ci moom ñu woowaat ko beneen woo ni ko faxla na alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwa ni ko summeel sa ñaari dàll ndax yaa ngi ci xur wu sell muy tuwa wax nañu ni li sabab ñu doon ko summeeloo ñaari dàll yooyu ni ko xaamid ibn abdillahi al yi nettalee jële ci sodiyu mu jële ci ahmad ibnu bajza mu jële ci aljamali mu jële ci isa ibnu yunus mu jële ci hamid mu jële ci abdullah ibnu mas'ud mu jële ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni dàll yi dafa jóge woon ci mbaam mu medd derub mbaam mu medd moo tax ñu ni ko fax la na aleyk moo tax ñu summiloo ko ñaari dàll yooyu bi mu jegee yàlla ne ko dama la tànn ngir li ma lay ak yonant kon nag déglu lii ñu lay wax yu ni ko man maay yàlla amul benn buur budul man na nga ma jaamu te taxawal ak julli te di ma fàttaliku danga na nga xam ne bis penc luy dikk la dama ko nëbbu ngir bu ñëwee ku ne ñoo fay la nga daan jëf ne ko ñi ko gëmut ñu sa dox sa digganteeg moom mukk ñi topp seen bakkan buñ dox mukk sa diggante ak ngay fàttali ko bis boobu ndax boo ko defee day alkande dina la ci fekk dal ni ko loolu ci sa loxo lu mu yow Moussa mu ne ko lii de sama yat la dama ciy sukkandiku di ci wàññi sama jur am naa ci it yeneen aajo mu ni ko sànni ko nee na bi mu sànni yat wi mu def jaan di dox ah Moussa daal di am tiitaange xool ba na dawal bati ko daw yàlla ne ko bul ragal ndax ab yonante du ragal fii fi man daal di ne ko jàpp ko nee na mu jël ko mu defaat aw yat loolu mooy wa maa tilka bi yaminika yaa Muusaa qaala hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahussu biha ala ganami wa li fiha ma'aarib uxraa qaala yaa Muusaa fa alqiihaa fa idaa hiya hayyatun tas'aa nee na mi mu defar aw yat nee na dugalal sa loxo nee na mu mu tàpp loxoom ci peggam nii bi mu ko génnee muy leer leer leer naññi mel na ab jant bay xaw a mën a fëkk bëti yi mu ne ko ñaari kiimaana ngoogu yi ma jox la ko dëgërale la ko ngir nga dem ci Firawna woo ko ci lii ma lay yónnee woo ko ci ak ngëm ndax ku bew la ne ko woo ko ci tawxiit waaye na ak nim toll woon ak nim dënge woon ak nim ñaawe woon politique ci nim daan doxale ak nit ñi xanaa ku cay dem day dana laaj nga yóbbu fit wu dëgër dana laajit euh, dana laajit ngànnaay moo tax Muusaa ñaan yàlla ne ko na nga ma leeralal sama dënn te fasu gi nekk ci sama làmmiñ muy dotam gi nga dindil ma ko ndax ñu mën a dégg li li may wax euh, te it Haaruna sama mbokk la moo ma gën a leer aw làmmiñ nga boole kook man ngir mu wax te it dama faa rayoon bakkan ragal naa lool su ma demee ñu indil ma ci ay jafe-jafe nee yàlla ni ko boole naa la ak sa rak sa mbokk Haaruna dem leen ci lii ma leen yónni te bu leen lott mukk ci tudd yàlla fu ngeen toll rek da di dëgërloo di tudd yàlla mooy walaatan yaa fi dikri yazhaba ila firawna innahu taxa bu ngeen demee na ngeen ko wax wax ju nooy ndax mu fàttaliku ndax mu ragal yàlla ndax lee mu fàttaliku yàlla ndax lee mu ragal yàlla na wax ak moom wax ju nooy loolu moo tax boroom xam-xam yi di wax ni waaraatekat bi waaraate bu ne nag war ngaa jëfandikoo kàddu gu nooy ci sa digganteeg ña ngay waar ndax yàlla kat bi mu yabalee firaaw bi yabalee Muusa ak Haaruna ci firawna da leen ni fa quulaa lay qawlan layyinan na ko wax wax ju nooy te yow miy waaraate mënoo gën Muusa ak Haaruna ndax ay yonante lañ ka ngay waarit mënta bon ba yées firawna ndax àggoon na ci woote ni mooy yàlla రావణ àgg na ci di woote ak olohiya kon ki ngay waar mënta ban ba yees firawna léegi bi yàlla waxante ak Muusa kàddu yooyu daldi ne ko demal misra mu daldi jóge foofu daal di jawali yoonu misra rek ci yonente googu ko yàlla yónni ba mu jëmee fekk yàlla wax yu na Haaruna xamal ko ni ko sa mbokk Moussa mi ngi ñëw boole nañu leen ak yonente gu ngeen war a doxi mu fajaru bi mu jógee teel a jóg wax nañ ni bésub gaaw ci njëlbeenu weeru sil xijja la jóg dal di maas kaw jëm ci tefesug niil moom Haaruna ngir war faa dajeeg Muusaa ci waxtu woowu biñ dajee ci tefesug niil jëkk jant bi fenk na ñu nuyoo jokkulante nuyoo mbokk yu gëj a gise waxtaan ba dëppoo ci war a ànd dem ci Firawna nee bi àndee dem ci seen yaay nee na wax moom daldi ne ko dañoo yónni ci Firawna seen yaay daldi jàq lool jàpp ni ñàkk na doom bis ni ki tey leen maa ngi leen di ñaan ngeen bañ a dem ci ngeen bañ fee jóge di dem ci Firawna ndax bu ngeen demee di leen di rey waaye ñu ni ko yàlla moo ni yónni sa lim ni yónni mënuñ koo ñàkk def dem ñoom ñaar ba àgg ci buntu dëkk bi bunt bi gën a mage ci dëkk bi moo gënoon a jege kër Firawna ci bunt yi bunt boobu bi mu daan génne ak a dugge moom na këram foofu lañ jaare wax nañ ne guddi altine ginnaaw teru teg Zil Hijja ginnaaw bu weeru safar ja tàmbalee ba am benn fan lañ fa dem leneen biñ demee ci bunt boobu yi kenn ci gardien yi wax ak ñoom ni leen ndax xam ngeen bunt bi kooku moom nee na Moussa ne ko bunt bi ak suuf sépp ak li nekk ci biir suuf si borom bindeef yee ko moom mbooleem ñi nekk ci kaw suuf si jaa ay jaamam lañu ne waa jooju dégg wax jooj mosu koo dégg mos sa jot mukk ni kenn ñem naa wax ju mel nii nee na bi mu déggee loolu yi nag mu daldi dem ci ña ko féete kaw ni leen dégg naa di wax joj tey laa ko ma sa dégg gis naa kii man ndax am na ñaari gaay yu nekk fii la ñuy wax de man ñemewuma ko wax sax ndax ñu ngi woote ni bunt bi ak suuf si ak ñi nekk fii ñépp jaami borom bi de fii lañ am na beneen yàlla daal bu ñuy wax budul firawna mbooloom bi ñëwee ci Muusaa